bu Ousmane Sonko di wax day mel ni premier ministre amul ci Sénégal kon. moom état warul faible la wax loolu mooy wax ci. état warul faible. voilà mais waxul ne état dafa faible. déedéet état warul faible. loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg. mais réewande gi fi am. ma commencé ku mel ni Barthélémy Dias lu nuyu lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ci ngoro gi nañu commencé par par ci li concerne Barthélémy Dias hmm. bu yoon defoon li mu war a def bala nga ne naam ne fa mooy bu justice defoon li mu war a def justice Sénégal su defoon li mu war a def Barthélemy Dias du nekk candidat waxal na ko boppam toog na wax madame la ministre euh, Aïssata Tall Sall bi nekk ministère de la ministre de la justice wax ko ne ko man mënatuma bokkaat ci élection na xam na ko comme niñ ko xamee la waral rigueur bu ñu koy wax xam nga lan la mm-hmm. réew duy caaxaan lépp lu ñu war a appliquer dañ ko war a def ak rigueur li tax yoon ñi légiféré gis ne ku légiféré kooku buñ légiféré ci lii maanaam nit buñ ko daanee ci pen yu mel nii wala nangam ak nangam kooku waratut a bokk ci élection diirub juróomi at loolu dañ koy appliquer à sa su amul nag nit dana ne état warul faible loolu buñ kiyee ay manquement lu am état loolu bu amoon ay sa tal sal def li mu war a def duñ yegg si fi mais ministre de la justice bi fi nekkit bu defee li mu war a def sóoraale ko xam ne lii ak lii mi ngi fiy xaar luñ yegg fi léegi lan lañ war a def loolu buñ ko waxee kooku du woon nekk candidat léegi nekk na candidat ñoom fi ñu njëkk a défier euh, mbir te xamoon ne te déjà ñoom sax liñ bëggoon a feeñal mooy faiblesse état ku mel ni Barthélemy Dias ak fi mu yegg ci yoon nga taxaw def ko candidat mooy bëggoon nga aw lay ba boo demul élection malgré dem na ci élection élection yi amu ci lu may violence ak coow lu bari ay saagaay ndey ak réewande gi ñu ko nit ñëpp xamee dem di soutenir Bougane ñu tàmbali ci Bougane Bougane lan la def refus d'obtempérer loolu mooy dëgg mën naa nangu sax clémence ci Bougane mais Bougane dañ ko njëkk a woo déglu ko ci bu pare delloo buum ca boy bay waa nekk beneen récidiviste defaat xamadi goo xam ne lu mu néew néew waroon na fa mën a jël nangam candidat la ci élection yi dugg nañ ci élection yi bàyyi nañ ko mën nga taxaw ne kooku loolu yoon bàyyi na ko yoon mën na cee taxaw parce que même même commissaire Kayta gis nga man tant que ñi ngi jaar yoon awma ci problème léegi bu taxawee ci kaawu Bart Bart dem Tamba di soutenir Bougane alkaati yi fekk ko di ko kii mu ne leen di leen jox xar bi ne leen su ma génnee suñ fi ne nangam da ngeen am liggéey mooy wax na leen moom li mu bëgg a def génn na ay nit naan sonko sonk mu tifaar leen ay saagay ndey ay garde corps yi mu àndal jàpp waa gox boobu di dóor te procès walla tribunal ñépp fa bokk yam boo ma mënee am ñu la ñëw soutenir si mais noonu la mën a amee ay nit ñëw contre la jàkkaarlook yow. Mm. démocratie ñaari cat la da ngay nangu bii di nangu bee. démocratie moo waroon a am mooy wane bugaan di dem tribunal nit dem di ko jàppale waaye ay nit tamit taxaw sañ koo contre ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk def sa àq. ak sa yelleef comme ni mu amee woon ci jamonoy Ablaye Wade ñu taxaw fii même le 19 mars opposition di ko xëccoog yow pour bëgg laa ruube nga bàyyi yoon ne leen nag seen droit la waaye yow tamit sa ñoon yi bëgg sa ñoon yi bëgg a bége nga bàyyi leen ñu bége ñu jàkkaarloo à fin de journée ñëpp xam kan mooy man kan Barthélémy Dias loolu mu def ko ñu sóobu ci ci ci ci campagne bi lan la nit ñuy wax dem nañ ba yow euh, euh, boo doonee politicien di ma campagne man ñëw fekk ma ma bëgg Ousmane sonk nga ñëw ne ma sonk <laughs> nga ñëw ne ma Bart ma ne la Sonko bu ma ne la Sonko man damaa bëgg yow nga jóge ci barte wala Bart sax moom su ma ko mënee campagne moom ba mu voteel Sonko sax dama ko war a def sama droit la plus absolu mais du yoon muy jël violence di ko teg sama kaw ñu jàpp ay nit tucc leen fan la waa Pastef jaar fu ñu fekk coow ñu ne la ñii waa Pastef a leen dóor wala caravane wala nangam ñun képp lañ nekk parti opposition ñu rey say militant woy reyal la lu dul jeex jàpp la kaso ñiy exilé deux mille personnes presque ak li fi am booba léegi ñuy taxaw di jaay ak saytaane yëpp lan lañ doon wax ana ñooñu Ousmane Sonko sax lañ doon jox toor ndax naan moo woote sa gatsa sa te résistance ñëpp lañ ko uh, sant mhm. droit la gis yi ngay wax ak ñeneen ak ñeneen boobu anañu pourtant dara du ci dëgg pourtant nii ñuy taxaw di hausse le ton wala dañoo jàpp ne démocratie moo am ci dëkk bi léegi ñuy jéem wax fi la ñu lépp fekk fi miste googu nag li ñuy wax indignation sélective yëfi saytaane la bu benn cause amee Barthélemy Dias wax na loolu ñëw ci biir ñu dóor ay waa euh, sàmm sa kàddu dóor ay militant Pastef Diourbel ñu porter plainte def leen ko Mbàkke te Diourbel bi ñuy porter plainte porter plainte Anta Babacar ku ma xam xam ne man dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi li ma xam laay wax dama ne ci boobu dama ne Anta Babacar mi ma jàkkaar lool suñu cortège yi rombante nii ñu ànd ak suñu leader jour boobu élite patriote la élite patriote boo waxee mooy caravane bi Cheikh Baara nekk Mara man mii ak ñoom gars yi ko bokk yëpp ma leen di jaajëfal di leen salier de passage man motard laay doon xam naa lan moo soxal euh, nu protection rapprochée wala yu demee noonu. Mm-hmm. j'ai mes sax ci loolu. dire que même module convoyeur bi fond noonu laa ko def mi ngi nii ñaar yi lii sama motard laa continuer loolu ba ma koy def nag du pour def ko métier étant commerçant dama dem def aar bi muy Krav Maga bi ma pare li nga xam ne moom ngay def module pour nekk protection rapprochée ma def diplôme bi malgré que duma ko mas a exercer fekkante naa fa ak ay docteur ay sociologue ay psychologue yoo xam ne dañuy ñëw ñu ma koy pratiquer ñu koy pratiquer sens boobu la ñu am. Mm-hmm. mais dafa am loo xam ne man li ma gëm mooy euh, garde corps yi yàgg naa wax ne ñoom rek mën nañoo indi jàmm ci élection yi dama gëm ne garde corps en pleine élection mën na sax yor arme waaye day fekk ñu taxaw ci seen statut defar ko ba mu ñëw instituteurs yi nga xam ne ñoom ñoo leen di jàngal wala li ñu jàngal mu doon lu ba ku ci génn suñ la jëlee teg la fa même boo nekkoon militant Pastef wala nga nekk beneen militant kii boo demee di exercer loolu militant bi a taxawatut mais ki taxaw di indi sécurité la sa VIP nga soxla moom ngay sécuriser leneen la ca nekk ku koy saagaak ku ko bëgg ak ku koy xas ak ku ko nangam ñëpp nga yemale loolu un vrai garde corps noonu lay def bi ñu rombante garde corps euh, Anta Babacar yi hmm. loolu laa gis ci moom prof ci ñoom professionnalisme bu mat sëkk ñu saafante moom suñ leader saafonteeg moom jàmm am moo tax bi ñu leen porté plainte ma taxaw wax li ma seede li ma xam ci moom waaye teg ci nag ne àndandoo day wàlle te comme moom Barthélémy Dias waxal na ko boppam nee na sax coalition bi <laughs> man maa jël sama responsabilité maanaam côté sécurité bi sama responsabilité kon man plainte ba ñuy plainte ti pour man war nañu ko ci génne Anta Babacar dem ci kee li ma wax rek laa xam man naa doon nag Anta Babacar que mën naa doon ñemee li ma xam laa wax ni ma ko ñaawloo ni ma ci dànkafoo dànkafoo président avant élection yi dànkafu na ministre de l'intérieur avant élection yi wax na ci biir élection yi wax na malgré teewul loolu waa sàmm sa kàddu surtout Barthélemy Dias ñi ngi persister recrutement bi ñu def ñëpp xam nañ ko képp ku xaw yëngu ci lu laal protection rapprochée man defuma ko pratiqué wu mais ma ci amee xarit da nga ciy gis bu ñu la waxee xeetu recrutement biñ doon wër ci gars yi def aar wala ñi nga xam ne gudd nañ rëy wala nangam ak nangam fi la ñu fekk. d'accord pistolet à pompe comme ni ko kee waxee man bokkul woon ci li ma dégg mais quand même yeneen gànnaay yi loolu bokk na ci li ma dégg. kon loolu bu amee ñu dem ndar ay caméra vidéo ñu di leen gis place yi ñuy dugg am na ci yoom am kamera maa ngi dégg Mansour Faye di wax di kàcc naan ñoom ñoo kar nangam. ah kon bu ñu ci seen boutique yi kon xanaa fa lañ fa lañ doon jaar même bu la karoon yow étant vrai garde corps protection rapprochée yow boo nekkoon ci benn am ay VIP yooyu aar wala benn VIP booy aar nit ñëw taxaw ci diggante bi di leen yuuxa wala dinaa boo leen xasee dàq jeex na continuer yow nekk ci li ngay nekk. mais loolu bu amee ñu jël nit les loxoom ba muy wadd man dama jàpp ne muy gis ak keneen ak keneen ak keneen ku mu mën a doon. problème yooyu loolu causé mbir mi nga waroon a ñaawul mais ba ba conséquence conséquence le fait que Ousmane Sonko ko wax ci wala Saa Wolof gis ko mu naqare wala keneen keneen di ko seetaan mu naqare loolu ay conséquence la te li ko causé lenn la muy waaju réew yoo xam ne ci violence lañ ko mas a xam bi mu duggee ci géewu politique ba nëgë ni mille 2004 mu nekk feek morom maamam fekk ko États-Unis def di saboter ko yuuxu loolu la am ci politique moromam yam fekkoon ay Malick Noël sekk ay Babacar Diop bii nga xam ne ay jeunesse socialiste ñoo xam ne seen bopp dara nekk na ci mais moom amul loolu lu dul violence la doon teg ba ni mu fi fekkee Macky xëy ne ay nit dugg nañ meereem wala ñëwoon nañ ci meereem bëccëgu dara kàmm nit ñëpp xam nañ ne menace bi tollu noonu nan la la ay nit tiime ne la ak i xeer ay jigéen mën a nekk sa ginnaaw ak i nit ba naan la barte arrêt tiireel ngay tiire mel ni dof allez-y nga mel ni dof menace bi bu toloon noonu ñoo ñooñu duñ mën a nekk sa ginnaaw nga wax ba nit faatu nga ne nañ dem ci margo yi margo yi loo fay fekk ak hôpital yi ku gaañu wala ku dee lii moo ñu ko wax kooku ñu àtte ko tey ñu teewoon ko ci kaso Macky Sall ñëw bàyyi ko seen projet tappale boobu ñu def ba génnee ko ci toppeetuñ ko ne ma mët waaye ku xawma lan del mortel xawma lu luñ ci waxati mm-hmm. ba yegg fii mu xëy defaat li ay genre justice dem wala ay nit di taxaw di la wax naan la ay waxi Ousmane Sonko wala nangam nangam et jëfi Barthélemy Dias nag seytaane gi moo war a jeex ci dëkk bi ak fumiste gi gis nga neutre du dugg àjjana yàlla buy buy bu bu man dama ne la neutre mooy naa feq yàlla buy teg bu amee lu koy sonal lu ñuy mën a bu ñu ko mënoon a tuddee loolu. mooy mm. naa feq mooy neutre. parce que yéefar bi safara la jëm jullit bi dem àjjana leer na waaye lan moo tax yàlla di teg balance mooy naa feq yi nekk fii. indignation sélective loolu moo war a jeex ci dëkk bi hmm. loolu bu ko Ousmane taxawee yëkkati kàddoom waaw biñ paree lan la ministre de l'intérieur def li mu waroon a def taxawal caravane bi ñu soupçonné ne nangam ak nangam pour man sax yépp lañ ko war a def sax côté bu nekk même ñi ànd ak Ousmane Sonko ku ci armé wu dañ la war a désarmé te dañ la war a yóbbu parce que waxoon nañ ko avant génn nañ décret na nangam ak nangam ak nangam loolu liggéeyam la te bu ko defoon kenn du ko wax kon du ñu yegg si ku loxoom dagg ki loxoom dagg mënoon naa faatu kon loolu bu ñu waxee bu Sonko taxawee ne euh, état warut wane faiblesse am loolu waxam la xeetu yi ñu daan giiñ ay homme d'état yooyu loolu moo ñu indi fii ñun dañuy waxante dëgg gis nga Sénégal fii su fekkee ne président dafa def lu mu warul def dañ ko ko war a wax su defee li mu war a def ñu tàcc ko sëriñ bi bu defee li mu war a def dañ ko war sant sargal ko bu deful lu mu war a def ñu ko journaliste bi ñëpp fii kenn gënu fi kenn loolu mooy dëgg complexe d'infériorité bi commencé woon di am Sénégal loolu c'est révolu kum neex nag nga génn nekk ci justice bi yaakaar ne man nga boo génnee mën nga fee am dara damaa diñ damaa nangam nangam dañ maa def loolu yi nangam ak nangam ma bàyyi pare dem topp nit ñi joxuñ la lu toll noonu sa xol di wañax lu fait que yàlla may waa ji lii mu koy may mais jom ji mu am xaj na amoo ko nañ may jàmm